lépp e programme la boo xam ni Sénégal ak Canada ñoo koy exécuter. koy exécuté ci domaine formation professionnelle euh, programme boobu di ñu jàppale ci daanaka fukki établissement ak ñeent ñu ànd ci ak suñu partenaire canadien parce que tey dañuy indi ay formation yoo xam ni moom la état du Sénégal def parce que li ñuy def dafa dëppoo ak PSE e. parce que dañu seetlu tey que ndaw ñi amuñu liggéey parce que liggéey amul comme ni ma ko waxee souvent dañu amul liggéey parce que amuñu métier.

ci biir fii Sénégal en lëkkaloo entre euh, entreprise yi ak école de formation yi loolu lu am solo la parce que day permettre xale yi nga xam ne ñoom la ñuy former ñuy dem di liggéey ci entreprise yi bu ñu demee am problème parce que yàgg nañu wax li ñuy jàng ci école bi ak li ñuy liggéey ci entreprise dafa wutee inadéquation formation emploi donc tey partenariat public privé dafa nekk loo xam ni suñu ligne directive la ci ministère bi projet bi aussi doon ko def euh, wax na ci am na 50 entreprises yoo xam ni tey ñi ngi nekk ay partenaires ci programme bi loolu du lu ndaw je pense que loolu partenariat bu am solo mais li gën a ëpp solo mooy tey projet bi comme ministère ni mu koy defee ndaw ñi bu ñu leen di jàngal ñu jox leen métier mais jox leen aussi nu ñuy saytoo seen yëf parce que tey dañu bëgg bëggu ñu leen former rek ñu xaar di xaar liggéey ci état dañ leen bëgg former pour ñoom ñu am capacité taxawal seen seen entreprises, mën a nekk ay employeurs.